jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo nag euh, làmb la ndax bu ñu nee làmb rek du ci bëre waaye tey woo nañ fi ngir sensibiliser ñi nga xamante ne tey dañu war a ñàkk ñooñu tey na nekku naa moom sant yàlla bu baax mais mu ngi suñu kër denk naa ko sama trois mois avant. ñàkku naa trois mois. Adama ñàkk bëgg a tiiñal. Adama ñàkku na. Adama ñàkk na. Baabu ñàkk na. Baabu je crois que bi muy ñibbi ñëw Sénégal ñàkku na. ci li ma yaakaar. Bas nag ñàkku na. Basiru waaw ñàkku na. Kàggu. Kàggu alhamdulilah ñàkku na. Ah, kon xaama suturaal leen waa waa wasaare. suturaal non mooy kon eh, solo. Hmm. mais ñàkk yow mbëri ana mbëri mbëri kat gisaguñ leen xaw ma mystique bi lañuy dawal ndax xaw ma xaw ma piqûre bi lañuy daw mais gars yi ñëwaguñ de. gars yi dégg naa yaa téye bës bi de xale yu mbëri yeeg reporter yi ñëpp yow lañ nopp mais reporter yi bokkuñu mbëri mbari ah non non. kan ah, ma bokk. gën a xam nag. <laughs> gis ngeen mbokk yi noonu la demee ñu ñëw fii ngir li nga xamante ni mooy ñàkku yi ndax nag ku ne xam na ni mbas mi sonal nañu trop ñu bëgg a ubbiwaat làmb ubbiwaat activités yi waral tey CNG de lutte bi woo fi képp koo xamante ni supporter nga woo fi képp koo xamante ni mbër nga woo fi képp koo xamante ni amateur nga woo fi képp koo xamante ni da dund làmb pour nga ñëw. ñu xeexal li nga xamante ne mooy coronavirus bi. am na ay constat yuñ ci def mooy bombardier yi fële ca mbuur gis nañ vidéo boo xamante ni moom vacciné wu na ku mel ni Balla Gaye 2 gis nañu ko gis nañ ci yeneen mbër yoo xamante ni tey vacciné wu nañ waaye li gën a rafet man damaa jàpp ni mbokk yi bu ñu nee CNG bi moo woote fii ci arène nationale képp kuy mbër donte vacciné wu nga ba pare da ngaa war a ñëw ngir jëmmal bis bi parce que ñoom ñëpp ay porteur de voix lañ yaakaar naa bi ji tëjoo. automatiquement cër bi nga xamante ni jàpp nañ ni làmb joxu leen ko wala état joxu leen ko tey bi mu bi bi làmb ji tëjoo ñoom ñëpp génn nañ def sorte ku ci nekk wax li mais ñoom ñooñu ñëpp tey dañu war a ñëw en masse fekk fi gouverneur bi mën a kaas li nga xamante ne mooy seen doléance loolu nag benn entre la boo xamante ne ñoom mbër yëpp waroon nañ ci jël leçon waaye gaa yaa ngi ci biir dañuy dugg ci biir xool gaa yi nan lañ koy waajee nan la ñuy dóoree ndax man moom dóor naa ko fii kon nañ leen dugg ci biir xool gars ay ca li ñu def tey message la comme gouverneur ni mu ko waxee yàlla su defee euh, feebar yu wàññeeku yaakaar naa ne ñëpp dañuy reprendre seen activité donc nag lii euh, ni ko gouverneur reflète loo ministre des sports reflète loo ko euh, yaakaar naa ne dañ ci sant yàlla bu baax a baax te yaakaar naa ne feebar bi dina wàññeeku te yàlla ñu ngi koy ñaan moom yoo xam ne moom moom moo am moo mun mu wàññil ñu ko génn ñu ko ci Sénégal parce que loo xam ne ci àdduna yëpp la daal dafa nekk loo xam ne dañ ko war a respecté mesure barrière yi nag ñu ngi ñaan nit ci ñu respecté ko seen masque seen gel ñu di ko diw donc yaakaar naa yooyu suñ ko defee ak vaccination bi ñuy def nii yaakaar naa ne mun nañ ci am ndam. mbër yi waajoon lii dal seen kaw ban euh, ban conseil nga leen di jox. Euh, conseil bi ma leen jox ñoom ñu sant yàlla rek parce que mënoon nañ ko bañ a fekkee yëpp su ñëwee da nga ciy jiital yàlla comme promoteur yi ñu ko defee reconnaître na ne lu leen dal ne métti na mais euh, ñu ngi ci sant yàlla parce que mënoon nañ ko bañ a fekkee am na ñoo xam ne nekkoon nañ fi fekkewuñ ko kon nag loolu yëpp ay ndam la ay ay nit yoo xam ne dañu gëm yàlla la di wax na nag sportif yi lutteurs yi surtout xale yi nañu fonk masque yi nañu fonk gel bi nañu respecté mesures barrières yi ndax ñàkk bi tey seen sagu ñoo taatuñ ko def pour naka lañu ñu ubbee làmb ji ndax xam naa ne lii su wàññee ko yaakaar naa ne suñu toogaatee ak ministre bi toog ak gouverneur nañu am ay jéego lu ñu def parce que waxal na ko boppam waaw. jërëjëf champion. gouverneur waaw mais loolu sant yàlla xam nga làmb daa bokk Sénégal. te cër bi dañ ko war a yaatalal jox ko ko ndax li muy def Sénégal gisuma benn sport di ko fi def tey jii nii lii làmb organisé pour ñëpp ñëw ñàkku gisuma ko ko def comme buy indi senegal si làmb ci dëkk bi làmb danga koy def si sport kon nañ jox làmb cër ndax lépp lu ñu woote ñu ngi ci lépp lu ñu bëgg ñu ngi ci bu dee liggéey ñu ngi ci bu dee gëm suñu bopp ñu ngi ci kon lu mu gën a gaaw pour ñu ubbi ko ñëpp jariñu waaw non sonn nañ mais mbër yi ñoo gën lu ñu yoroon def nañ ko ci ay sëriñ def seen doole amatuñ promoteur yi am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey xam nga kon ñoo tane mbër am li ëpp sens mooy nañ jàppale làmb jox làmb cër waaw. fu mu ne nii après vaccination yi est-ce que am nañu yaakaar ngeen delluwaat waxtaan ak gouverneur bi wala CNG delluwaat waxtaan ak gouverneur ndax ñu mën a ubbi làmb ji. non comme nee nañ buñ buñ buñ vacciné ñu ñu ubbi ko vacciné def nañ vaccination ba pare nañ nañu ubbi làmb ci loolu rek moo ci des di ñaax ñëpp ñu ñëw ñu ubbi ñu ñu ñëw vacciné non non ñëw am na ñoo xam ne dañuy ñëw ak euh, xam nga ci ci temps boo xam ne kenn du leen gis comprendre nga mais ñun ñi nga xam ne dañuy joxe exemple dañuy ñëw wane ko mais incha allah ñëpp bëgg làmb ji ubbi dinañ ñoom ñëpp dina ñëw incha allah jaajëf. mais dañu bàyyi ba le jour bi xam ñu soog ko xam métti na trop mais tamit lu métti jaam lay daal te mënoon nañ jóg di bëre si xamuñu ndax dinañ egg si wala duñu egg si xamuñu ndax buñ ñëwee si làmb ji bon dañ ñuy kaw wala. dañuy am safaan lépp yàlla moo xam mais comme suñu borom defee na ko noonu dafa gën xëy des ñu bàyyi loxo yàlla incha allah loo ma laajal ma tontu la. fu mu ne nii Covid bi moo tax ñu tëj làmb ji ñu ngi def campagne de vaccination ngir ñu mën a ubbiwaat làmb ji ci lan nga nekk instant bi dégguma la dégg ci lan nga nekk instant bi waaw instant bi maintien duñ bàyyeeku ah amuñ jot bàyyeeku parce que làmb ji nañ jekk-jekk ñu ne ñëw tijjiwaat nañ ko lu ñu munti am mooy xam nga dañuy maintenir maintenir suñu forme amoon nañu état de forme bu baax xam nga waaw duñu duñu bàyyeeku daal amuñu jot bàyyeeku waaye lay coy wuy ma sa mu jàpp ne moo la mën moo la ëpp doole moo la dàq mystique yow nga koy wax yow waaw man dama ko ñaanal jàmm d'abord di ko baalu àq di ko baalu àq di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suma boobu man xaw ma moom peut-être am na xamoon na ni lamb jur lamb ji ne xam na ni may def mais man ñëwoon naa pour def si rek bon mais xaw ma lu ma yàlla doon defal wax dëgg yàlla waaw gars yi ñu ngi fi may siyaar bébé guy gi xam ñoo ànd suma rak di nuyu suñu di ñaanal suñu papa bay di sëy yàlla suñu borom xaar ko àjjana di nuyu staff yëpp yëpp yëpp di nuyu suma ay grand frère man sama combat dafa métti woon parce que man amul benn autorité bu ma jàppale bilaa wala taalaay man maa doon def ak suma ay grand frère xam nga sama staff kese ñun ñoo doon def ah waaye ñun dafa métti woon suñu côté mais santaat yàlla bu baax a baax a baax noonu la mu doon demee demee na ko may nuyu grand Jibi fay Balla Faye Ablaye Ndiaye Mbaye Diop Mauritanie xam nga maa ngi char ñëpp la res ñu bàyyi ñu bàyyi ci loxoy yàlla loo ma laajaat ma toon la bordel supporters yi xam nga ñu wax leen ñu gën a waajaat kaay mayoon nañ leen ay kaar xam nga man maa leen woo ne bu leen départ waa Diourbel yi waa Géejawaay yi aussi ñu ngi doon bu baax a baax xam nga ma leen ñu waajaat bu baax a baax a baax la res ñu bàyyi loxoy yàlla loo ma laaj ma tontu la sinon ñu arrêté Johnson bi instant bi dama xaw a xiif nag mais baa ma dem wut lu ma laal ba pare après xam nga gën a mën a. suñ ne lii moo ñu ci mën a génnee nañ ko def benn yoon te pare si ndax àdduna bi yëpp ñu ngi koy def ñu bañ a déglu ñi nga xam ne dañuy yàq xelu nit ñi te doomu aadama bu nekk war nga am gëm-gëm ne lépp lu ñuy def doomu aadama mu koy lor def nañ ko doomu aadama mu mucc ci kon kenn ku nekk soo amee ngëm-ngëm boobu rek doo sonn te yaakaar naa ne suñu réew du ñu jël loo xam ne baaxu suñu ñu koy def suñu nañ def lu ñu war. def suñu wareef ñàkku mën a continuer suñuy activité ndax kat ku toog ñaat deux ans trois ans li nga loon def yëpp mënatoo ko lu ko waral benn feebar muy Covid ñu gis ne lii mooy solution pour jëlee fi Covid kon na ko ñëpp def rek Covid bi mun fi jógee. ñu gis xalaat bu rafet initiative boo xam te ne nii mun naa ne campagne de sensibilisation la fu mu ne nii jàpp ngeen ne suñu piqûre ba pare lamb dina ubbi waat wala da ngeen dem waxtaanee jiwaat. non waxtaanee jiwaat moom waru am c'est normal ndax nag bu ñu bàyyee suñu itte bàyyi suñu lépp. ñëw volontaire ñu pikir ñu mbëri ñëw def ko amateur yi def ko promoteur yi def ko nañu tijji làmb ci ñun làmb la ñu am làmb lañu yaakaar bi Covid bi ñëwee waxuñ ne bu kenn amati salaire waxuñ ne ministre ba mu fayee ko di salaire waxuñ ne directeur ba mu fayee ko di waxuñ ne député ba mu fayee kenn ku ci nekk yaa ngi sa liggéey di am sa salaire ñun làmb la ñu am. lu ñu amoon yëpp dañ ko jël def ko ci làmb ji man la 14 laa waroon a tëgg la 14 suñu waxoon Covid bi da ngay joxe sa baaraam ñu dagg ko Covid bi jógee ko fi nga mën a continuer sa liggéey dama koy def ndax li ma amoon yëpp def naa ko ci làmb ji miiras sama bopp toog di xaar dem ba sa na jege si ñu annulé affaire yi wax dëgg yàlla loolu dara gënu ko métti kon na ñëpp ñëw volontaire ñu pikiru yaa ngi dégg Covid bi jógee ko fi ñu mën a continuer sunu liggéey suñ jabootu làmb nag pikiroo man sama gis-gis nañ ñu ubbil làmb ji képp koo xam ne amoo carnet bii doo dugg. bu ñu ko defee yaakaar naa lamb am na lu bari loo xam ne war na ko mën a def ci affaire vaccin yi incha allah. asalaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay nuyu. salaam soxna si. naam yaa am jàmm bu baax a baax. naka jaayante yi. ñu nuyu monde entier nuyu xam nga waa senegal ñaar ñëpp jàmm xam ñaar borom si yëpp jàmm ah. waaw dinañ bëggee. bu ñu tey jii ci vaccination fii ci arène nationale ba nga ko ba nga ñàkk pare lan nga yëg. déggu ma. waaw damaa ñu ne ko pare entre muy métti quoi mais xam naa ne lu muy lu may doon ñekkuloo quoi xam naa day bàyyi sax te bàyyi na sax incha allah rek bàyyi na. lan la sa combat bi da nga ciy amoon combat saison bi nii. waaw man le 28 laa waroon bëre le 28 waaw man le 28 laa waroon bëre si combat yi war a am bi le 28 fii nii Doudou Sane ak ba xamoon bër mbër laa doon bëre waaw ak Giro Sera waaw waaw loolu demee. non lu ma métti billaahi wallaahi taalaa sama mbokk dañu kaa waaj defar ay tarak defar lépp xam nga waa day for sonn si làmb ji def lu nekk. man man man tax man sax ma koy yéex a man ndax man le jour si man lañ ma lañ ma xamal yow le 28 mënoo bëree ndax dañaa baare affaire yi waaw mu doon lu ñu nag mbër yëpp lu ñuy jooy di ko ñaxtu moo moo lu ñu métti ñu moo lu ñu métti billaahi ah? ma supporter mooy ñu ñu gën a jàpp rek xam na làmb ji day ubbiwaat si jàmm ak salaam xam nga ñëpp nekkat jàmm gars yi maanaam jàmm la ñu bëggal rek mais tamit gars yi nañu bàyyi ñu bëree quoi ndax ñun amuñu lu làmb ñu làmb la ñuy xam nga làmb la ñuy safal amin titroo mais xam nga tamit même bu ñu koy tëj tamit ñu xaar ba lamb yëpp jàll ñu doog koo tëj comme combat yu yu waroon am nii waaw loolu nekkul écart sorti war mu jeex mais bu ñu bu ñu dee wàcc alalam bu dul jeex xam nga ngeen ñëw gars yi ñëw dind affaire yi xaw si nguur la xaw ma si CNG la mënoo xam si fan la mais ñu nga ñaan na gars yi ñu bàyyi ñu bër ndax ñun amuñu lu dul làmb làmb lañu làmb lañu yaakaar waaw ñu defuñ dara duñ nangoo sàcc nangu ñoo sàcc nangu ñoo agressé nangu ñoo def loo kenn mu xam ñu dañuy xëy di entraîné ji di daan suñu doole bu ñu amee combat dañ siy nekk bu ñu amul combat yëpp liggéey waaw mais comme di entraîné ba am doole di toog si bopp ko nangu alul jàmbur loolu dañ kaa jomba def amuñu lu lam te loolu muñ ko mën a may bu ñu bàyyi ñu bëri rek jàmm day am Sénégal mais comme Kanta mbër bu entraîné ba am doole amul lu mu liggéey amul dara noo def mu jéem a dugg si affaire yi te du ko tey waaw gars yi nag nañu gën a jàppale ñu jeunesse bi métti na tamit métti na trop waaw métti na trop billaahi métti na métti na bu fi métti yem nag buñ ko waxee buñ ko waxul waa ñun mbëri ndaw yi amuñu dara dara dara loo xamante ne rek gars yi dañu ko war a mën a bañal waaw dama su ma sa ñu bëre xam nga si fulla ak si fayda ubbi affaire yi si jàmm salaam ñëpp nekk si jàmm waaw mais quant ñu ñuy def libre yi métti ko waa billaahi merci ah. jaajëf bu ah, euh, Adama ñu ngi taxaw suñu papa Père Bourkhane papa maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fi. nga Euh, kontaan aussi ci ci làmb en général ci composante yëpp ndax lii acte citoyenneté la te it làmb à chaque fois réew mi soxla rek ñu def ci seen participation du ñu fàtte ci ginnaaw ci démarrage Covid bi mi nga xamante ni euh, secteur yëpp ci Sénégal kenn ku nekk yaa ngi doon def sa participation làmb def na ci partition ba mu wóor parce que composante yëpp dajal nañu li ñu am ànd ak seen ministre tutelle ñu am seen ministre de la santé yóbbu leen seen aide tey ji nag dafa am benn mbër mu mag moo xam ne roi des arènes sax lañ koy tuddee ndax pendant deux ans mi ngi fi sonal ñu nar yàq suñu yëf ñun ñëpp nag ñu jóg fas yéene bëreeg moom muy Covid 19 tey jii gis nga tey toute la famille daal la dajaloo ñoom it fas yéene pikiiru pour xeex ak Covid bi lii dinañu permettre au moins dinañu permettre au moins état libéré waat ñu ñu commencé tëgg suñuy làmb kuy ñëw indaale sa carte sa de vaccination kuy ñëw indaale sa masque kuy ñëw am gel ba nga xam ni euh, feebar bi nga xam ni mooy Covid 19 day jóge ci Sénégal completement ñun nag comme dañuy bëre te am mbër moo xam ne dafa bëgg a def boppam roi des arènes il faut ñu éliminer ko te ci lii leen koy éliminer. ci loolu nag ñu gis soo ba léegi ñu ngi fii nii ci arène nationale ténor yi waroon ñëw ku ci mel ne Boy Niang numéro 2 dëkk Pikine gisaguñ ko lan moo tax dafa pikiru ba pare wala dafay xaar moo wàññeeku mu soog a ñëw pikiru si. Boy Niang sax pikiru na ba pare mais su fi nekkoon day ñëw mais dafa génn ndax moom bi mu demee bi mu mu demee France ci la pikiru en tant que ambassadeur de la non violence Boy Niang su nekkoon ci biir territoire sénégalais kon dina ñëw fii mais nag yàlla dafa dogal mu génn xam nga làmb ju ñu reporté dafay laaj lu bari loolu moo tax euh, booy ñaa nekku fi quoi mais su fi nekkoon moom dina ñëw. xanaa wax wax rek nit ñi rek dañ ñëw en masse ñu vacciné wu parce que ñun suñu yëf euh, Covid du ko yàq euh, Covid du ko yàq parce que ku ñoo xam ne dañoo yàgg di bëre. soo ñëwee dëkk leen il faut nga am combat bu rëy rëy rëy te Covid am na combat.